10 heures lay commencé 13 heures ñu paree ko incha allah. incha lan nga ciy sànni ah ñu ñu tëj rapidement. gis nga gis nga Amadou Gakou. il a souffert il a 83 ans. macha allah yàlla gën a dund. yàlla gën a dund il a 83 ans euh, ñu ngi sant yàlla lu bëri. gis nga euh, euh, fekkee na dafa fekkee moo tax lii nga xam ne dañ ko koy dañ ko koy tuddee ko ko. Mhm. et li si gën a neex si de son vivant. xam nga nit ki di nit ki di dund nga ne ko yow laa jagleel lii wala nit ki di dund nga ne ko yow laa tuddee tali bi comme Ablaye Diaw ni ñu ko tuddee tali bi nekk buntu stade euh, Demba Diop loolu la ñu soxla si ni duñu bàyyi bu nit ki dee génn àddina. <laughs> ñu a des choses yoo xam ne mais mais loolu laa bëggoon ba 30 secondes. donc Aïssa sa émission bi nag dafa gàtt ah tonton nag temps bi jeex na. <laughs> non loolu laa bëggoon loolu laa bëggoon wax loolu laa bëggoon c'est juste une petite contribution de 30 uh-huh. secondes. Uh-huh. parce que bon euh, bu fekkee dañuy wax euh, gloire ancienne gloire par exemple si athlétisme que ñuy wax euh, Amadou Gakou que mu nekk Diaba aussi tamit c'est important parce que boo demee Afrique par exemple keneen Moussa Bekele Kila Carl euh, Lewis ñoo ñëpp ay ay grands champions lañ. Mhm. Euh, dañ leen a honoré presque seen vivant. de leur vivant euh, c'est important et puis peut être dinañ si ñi nga xamante ne ñoo nekk fii Sénégal aussi tamit ñoo tamit ñu honoré leen comme comme keneen ni saa leen nu ñu ko def en en Éthiopie. nga xam gàkku baal ma de gàkku war nañ ko jëndal kër bu bokkal li mu am. Mhm. war nañ ko jox oto bu koy dundal mu am ressource. Gakou warul laaj kenn dara. war nañ ko tuddee stade. dañ ko gis nga mali mhm. Sénégal bala ngay bala ñu lay tuddee wala bala ñu naan moo baax nga dee. ñu tëral la ñu ne ak a baaxoo. <laughs> fekk nga. jërëjëf donc c'est une bonne initiative. non c'est euh, Aïcha bul bul bul ma dog waay Aïcha man sinon damay damay wàcc plateau bi dem ah. yan ma li nga wax lépp dëgg la. non macha allah dëgg la. Mhm. Aïcha. Mhm. si ñun en tant que reporter journaliste si plateau yi lañ koy man duma wax ci biti. dama koy wax fii ku mu neex noonu la ku mu naqari noonu la nañu ni ñu koy honoré Amadou Gakou le mérite amplement waroon nañu yëkkati benn vingt millions ne ko kii ñoo la ko may yëkkati kër ne ko lii jël parce que xoolal son épouse est décédée de cancer bi muy gaañu 2018 euh, euh, moom kese ak soxna am si kër gi buy taw kër gi day senn hmm? ma man dafa daan dem gis nga Amadou Gakou te du ko wax kenn. kenn jooy Gakou mii dem ba mujj gi parce que il a été professeur d'éducation physique au lycée Blaise Diagne waa Blaise Diagne man koo ànd dajale ni du fekkee kenn dimbaliwu ko ñu ñooy defaraat këram les élèves du lycée Blaise Diagne ñoo dem defaraat këram. Ah, promo LBD. yi commencé génnee bala ñuy génnee ngay bëgg a dee wala keneen def y a des cri du cœur laay def nii ah. Mm-hmm. et y en a plein qui sont qui sont malades qui sont chez amuñu dara kenn faalewu leen et c'est des sportifs de haut niveau. yoo xam ne ñu ngi fii je pense en citer à la pelle gis nga Aïcha tant que amu leen information yooyu. Omar Dangaloum on lui a amputé les deux jambes Omar Dangaloum mon mentor man on lui a coupé les deux jambes loolu lan la deful ci arts martiaux. ci judo. ñooñu dañ leen war a taxaw secrétaire général union africaine de judo président la fédération de judo et cetera ay sa émission bi bu bu jeexee tey man damay. damay tonton ma damay dalalaat feneen. <laughs>